parce que expression souveraineté nationale la loolu mooy cëru armée waaye du di xoqatal askan wi naam ba léegi dégg gu ñu fu armée tiré ci peuple peuple bi ba léegi dégg gu ñu fu armée defee naka su noonu waaye nag armée rôle am du maintien de l'ordre tey su ñu nee armée demal garder ay magasin Auchan wala ñu ne armée demal garder tel bâtiment askan wi ñëw jub.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 defar réew mi ba ñëpp ne ñun xalaatuñu woon réew mi mun na mel nii. Bonsoir. Le Sénégal, notre pays, traverse l'un des moments les plus sombres